solo si xadi liñ si mën a jàpp mooy euh, comme ni nga ko waxee tey ci suba tenir nañ tijji nañ atelier bi nga xam ne dañ ko consacré euh, consultation yi nga xam ne moom la ñuy def si entreprise ak droit de l'homme loolu nag buñ ko teniree Thiès damay njoxtu ne li ko waral mooy le fait que région bu Thiès déjà am na ay industrie yu bëri yu fi yu fi yu fi installé wu waaye tamit euh, dëkk nit ñi tamit am na lu ñuy tuddee boom démographique bu fi am maanaam nit ñi ñu ngi gën a yokk saa su bu ko defee nag dëkkuwaay yooyu noonu ak ñi nga xam ne dañ fiy ñëw ndax potentiel bi nga xam ne am nañ ko day indi des fois ay problème problème de cohabitation problème yoo xam ne dafay jëm ci respect même par entreprise yi ñi nga xam ne mooy droit ña fay liggéey loolu nag euh, bu amee day laaj des fois ñu toog càmbar waxtaan te jox naa ne ni ñu en tout cas amee amele atelier bi partie prenante yëpp a ngi fi population yi ñu ngi ñëw toog société civile ñëw toog société bi société représentant secteur privé bi ñëw toog i tamit administration ñëw toog même ñi nga xam ne ñoom ñooy administration judiciaire ñëw nañu toog ko defee ñu càmbar waxtaan jàpp ne li nga xam ne bëgg nañ ko mooy su euh, suñu yokk suñu kom euh, fexe ba ñi nga xam ne dañoo yor seen alal bëgg a ñëw investir si réew mi bu ñu ñëwit tamit ñu respecté li nga xam ne dañ ko tëgg teg ko mu jëm ci respect ak ak yelleefu doomu aadama loolu nag jàpp nañ ne état bu Sénégal tey waree fam la mu fexe ba ak ak yelleefu doomu aadama ñu protéger ko waaye tamit entreprise yi xam ne seen responsabilité la pour que ñoom ñu fexe ba respecter li nga xam ne moom mooy ak ak wareefu ak yelleefu doomu aadama itamit képp koo xamante ne nii jàpp nga ne say ak ak sa wareef dañ ko salfaañe nga mun a am foo xam ne di nga ko fa jooye mu nekk euh, foo xam ne ci euh, administration judiciaire la wala bu ko nekkul waaye daal mécanisme yi bëri nañ ba nga xamante ne nii jàpp nañ ne euh, li nga xam ne mooy principe directeur yi nga xam ne Sénégal adopté nañ ko war nañu mën a dem ci élaborer plan d'action boo xamante ne dafay gën a dëggal ñetti pàcc yi nga xam ne euh, lim naa ko sànq muy protéger nit ñi euh, faire respecter droit yi waaye tamit koo xam ne sa àq ak sa yelleef salfaañ nañ ko nga am foo ko mën a jooyo ba am saafara jàpp nañ ne efficace na ndax état bu Sénégal teg na ay mécanismes yu bëri ba nga xamante ne nii euh, li nga xam ne soxla dañ ko mu yokk suñu kom bépp entreprise bi fi ñëw bëgg a euh, bëgg a installé wu am na ay études yoo xam ne dañ la koy defloo te yooyu noonu day tax ñu mën a natt li nga xam ne bëgg nga ko def yi ban jeexital la mën a am ci askan wi bu dee bu baax la tant mieux bu bay tamit jeex na jeexital boo xam ne dafa safaanooy tamit ñu teg ay euh, ay ay ay ay ay points yu nga xamante ne jàpp nañ ko jàpp nañ ne bu ñu ci bu ñu ci taxawee njeexital boobu safaano boobu war nañ ko mën a atténuer li ñu koy waxee si si si tubaab bu ko defee nag day revenir administration pour mu vérifier loolu waaye buñ demee tamit ba nga xamante ne euh, population yi jàpp ne seen ak ak seen yelleef dañ ko salfaañe ñun pour ce qui nous concerne teg nañ en tout cas teg nañ ay ay mécanismes yoo xamante ne nii ay commission de gestion des plaintes la teg ay mécanismes yoo xamante ne nii ay voies de conciliation et de médiation lay doon te généralement sa peut s'avérer efficace ndax des fois réeroo du am mais généralement ñàkk waxtaan mooy am ak xëccoo bu ko defee nag ñun en tant qu'autorité administrative dañuy toog waxtaan wax li nga xam ne moom la yoon teg mu war a mën a doon li nga xam ne noonu lañ ko war a mën a liggéeyee partie prenante yëpp muy population yi di exploitant yi bu ñu defee liggéey boobu nag dem ba nga xam ne amaana njeexital biñ ci doon xaar amuñu ko je pense que administration mu ngi fi te bépp dossier boo xam ne dem na fa jëm ci li nga xam ne moom moo dem ci wàll ak euh, respecté wu respect euh, ak ak yelleefu doomu aadama dinañ ci taxaw taxawaay bi nga xam ne moom moo ci gën donc au final euh, nu pensons que mécanisme yi nga xam ne teg nañ ko ay mécanisme yu efficace la te nit ñi bu ñu jaaxee fi ñu war a jaar rek généralement gain de cause dafay am ndax sànq rek maa ngi waxtaan ak benn directeur bu jóge AIBD bi ñuy toxal village yi nga xam ne newoon nañ foofu noonu xëccoo bu métti la woon xiiro ak ŋaayoo mais tey yaakaar naa ne aéroport bi même population yi approprié nañ ko et on a vraiment une cohabitation apaisée euh, dëkkandoo bu dal entre aéroport bi ak population yi nga xam ne seen ay village jàppoon nañu seen suuf lañ bëggoon a jël pour leneen waaye jàpp nañu amaana pour développer seen zone boobu rek moo taxoon ñu def ko. waaw salaamaaleykum maa ngi tudd Medoune Gueye di ndaw euh, programme des Nations Unies pour le développement. Nations Unies bu ñu ko waxee euh, dafa ëmb kuréel yu bëri comme ni ñu ko suñu naataango buy waxee bi nekk HCDH au commissariat des droits de l'homme donc liggéey bi dafa doon loo xam ne dañ ci taxawu gouvernement du Sénégal donc euh, muy HCDH euh, au commissariat des droits de l'homme muy PNUD mu yeneen entité yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci Nations Unies comme ni ñu waxee Nations Unies benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar donc bu ñu ñëwaatee ci wàllu principe directeur yi maanaam dafay tënk li nga xam ne mooy jokkaloo diggante ak euh, entreprise yi ak euh, li ñu naan taxawu doomu aadama yi maanaam sàmm seeni àq ak seeni yelleef ba nga xam ne état bu nekk nag tey bu ñu ginnaaw principe directeur yooyu état bu nekk war na mën a teg benn li ñu naan plan d'action li nga xam ne tëgg benn benn benn benn document bi nga xam ne moom mooy rappeler lan mooy taxawaayu état yi ngir mën a sàmm ak ak yelleefu ci ginnaaw entreprise yi bu ñu installé woo bu ñu bu ñu nekkee tamit te entreprise tamit nan la ñuy taxawee ba nga xam ne seen wàllu liggéey ñu mën a sàmm ak ak yelleefu euh, doomu aadama yi loolu si ginnaaw loolu am beneen pilier bi nga xam ne moom mooy bu wane ne par exemple tey doomu aadama bu dee ay àq ak yelleefam dañ ko salfaañe mu mën a am fu mu jooyantoo donc loolu la principe bi di di di di tënk te si ginnaaw loolu liggéey bi bi nga xam ne moom nañu summ tey te tàmbale ko fii si Thiès dafa doon loo xam ne foog mu am ay waxtaan parce que principe directeur yi bañ koy tëgg sax ay waxtaan la yaakaar naa ne euh, ñeent fukki euh, juróom ñaari consultation am na ko si si àdduna bi yëpp bi nga xam ne pour mën a tëgg principe directeur donc Sénégal bu waree taxawal plan d'action pour wala firndeel ne moom si Nations Unies la bokk dina jël toog waxtaan ak nit ñi waxtaan ak acteurs territoriaux yi muy muy population yi muy service technique yi muy entreprise yi ñoom ñëpp ñu mën a waxtaan ngir mën a tëgg plan bi nga xam ne ëllëg dina tax ak ak yelleefu Euh, doomu aadama yi kenn du ko salfaañe si wàllu entreprise parce que gis nañ fi yenn coow yi mais comme ñu ko waxee rek y toujours de am na ay ay taxawaay ay ndëgërlaay yi nga xam ne ñoo fi nekk te ñu war ko mën a topp muy entreprise muy gouvernement bi. bokk nag si appliquer loi et yi comme ni ko sama naataango bo waxee loi et moom kenn mënu ko jegaane nul nul ne au-dessus de la loi comme ni ñu koy waxee kenn mënul taxaw ne man maa gën a mag loi wala règlement donc ñëpp dañ si war a mën a tënku. te état bi tamit mën a taxaw jàpp ngir nit ñi tënku si si si loi et yi nga xam ne moom la tëgg loolu laa bëggoon wax. solo la euh, ndaje boo xamante ne du ndaje bu Sénégal di def rek euh, parce que Nations Unies xam nga ñoom dañu am ay mécanismes yoo xamante ne pour ñu xam fan la application droit de l'homme ci àdduna bi yem euh, donc léegi ci lañ tànn benn mécanisme boo xamante ne mooy li wax un expert indépendant. pour mu xool mbirum ak ak yelleefu doomu adama ci diggante entreprise yi ci ni ñu liggéey ci seen activité donc bi euh, expert boobu defee analyse bi au niveau mondial gis na ne que vraiment am na ay jafe-jafe ci population yi am na ay jafe-jafe ci entreprise yi te gis nañ ne aussi état bi war na def ay jéego pour am ñu ñu trouver amélioration léegi ci la ñu génnee principe yooyu mooy ay orientation yi nga xamante ne pour ñoom xalaat nañ ne bu ko état yi jëlee war na mën a tax ba vraiment euh, en tout cas qu'il moins de problèmes ci euh, mbirum euh, wàll euh, ci ci wàll wi ci le Sénégal mi nga xamante dafa nekk aussi un état assez actif du point de vue de la communauté internationale ci la adopté principe yi engagé wu ne aussi moom dafay def plan d'action parce que ci principe yooyu dañu ne bépp état bu ci adhéré li ñu yaakaar ne moom mooy li gën a baax pour que ñu arriver à faire respecter ces ces kii mooy defar plan d'action ci le Sénégal lancé wu depuis un certain nombre d'années ne ñu nag comme ministère la justice c'est le ministère chargé techniquement euh, pour euh, xool évaluer ni état bi di doxalee mbirum ak yelleefu doomu adama euh, service technique am yi pour ñu xool ban yoon la ñuy adopté pour defar plan bi ci la ñu xool gis ne que consultation dem waxtaan ak population dem waxtaan ak autorités yi dem waxtaan ak communauté yi ni ñu gis ne que loolu mooy li nga xamante ne mooy gën a tax ñun ñuy xam fan la problème yi nekk moom moo tax ñu ne daal consultation identifié un certain nombre de région comme région Sénégal euh, région Thiès gouverneur wax na ko léegi ak essor économique bi fa bi fi am actuellement euh, ci la ñu tànn Thiès euh, ak yeneen région yoo xamante après lañu fay dem pour mën a toog waxtaan dajale li ñu xam ci kii bi ku ci nekk mooy population bi mooy société civile bi mooy autorité administrative mooy autorité élu élu locaux yi mooy autorité judiciaire yi ak ñëpp ñëpp daal loolu daal mooy li nga xamante ne moom mooy contexte su defar plan d'action yaakaar nañu ko yaakaar nañu ko parce que mooy li ma doon wax sànq ci sama discours bi ci biir dama ne euh, consultation yi mooy dajale dajale idée yi su ko defee euh, ñun dinañ xam fan la ñu war a yaakaar ne état bu ko agiré maanaam mën na amaana day def ay loi yu bees amaana day renforcer loi fi nekk amaana day def ay mécanisme euh, yoo xamante ne ci la gën a yombal waxtaan bi diggante entreprise yi ak ak ak population yi pour ni amaana day renforcer aussi mécanisme judiciaire yi donc ñun daal yaakaar nañ ne euh, ci waxtaan bi la ñuy gën a war a mën a xam lan la ñuy yaakaar ne moom bu ñu ko waxee état bi dina mën a euh, permettre daal ba wàññi problème yi nga xam ne am na ci diggante entreprise yi ak population yi. Euh, je suis Benjamin Honton je suis le représentant régional adjoint du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme Et je représente ici le, le représentant régional empêché, euh, M. Robert Kouchani. Merci. L'application des Nations Unies, c'est de soutenir tous les gouvernements euh, dans le, la, la, promotion du, du principe directeur, hein, le, le, principe directeur des Nations Unies sur les, euh, les entreprises et les droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'agit de principes euh, très important en termes de, de, de protection des, euh, des, droits humains, euh, notamment par rapport à l'activité des entreprises. Et ces principes se fondent sur trois choses essentiellement. D'abord, dans la, la, nécessité pour le gouvernement de protéger, protéger conformément aux, aux instruments internationaux et nationaux, conformément aux lois et règlements. donc la, la, la protection des, des, droits de l'homme dans, le domaine des, des, des entreprises, de l'activité des entreprises. Je crois que c'est fondamental. Et cette protection également, euh, au-delà des lois et règlements, il y a tous les mécanismes euh, qui se chargent de l'application des lois, donc euh, tel que le disait tout à l'heure Madame la gouverneure, les mécanismes judiciaires et non judiciaires. Et donc, euh, tout ça là, je crois que ça, ça relève de, l'obligation de, de l'État de protéger les populations par rapport à l'activité des, des, entreprises. Euh, l'autre chose en termes par rapport au, principe directeur, c'est l'obligation pour les entreprises également de respecter, respecter euh, les, les, lois et règlements dans, dans, dans, ce domaine-là. Euh, en, en, vue de, euh, nous avons vu tout à l'heure euh, dans, dans la cérémonie d'ouverture, vous avez vu que euh, non seulement le, le, le mécanisme, euh, l'appareil judiciaire était représenté, mais également l'inspection du travail. Donc la nécessité pour les entreprises de respecter les lois et règlements sur, la question de, de la, la, prise en compte de la dimension des droits humains dans leurs, activités sur le terrain. Donc c'est très important également. Et troisièmement, la nécessité par rapport, euh, euh toujours dans le cadre de, de la promotion de ces principes directeurs, la nécessité Euh, pour les communautés, les communautés impactées, euh, de, euh, comment dirais-je, d'avoir réparation. Hein, il, faut, il, faut, il faut pouvoir les soutenir de, de, en vue d'obtenir réparation par rapport à l'activité des entreprises sur le terrain, dans les communautés qui sont, ont été affectées par l'activité des entreprises sur le terrain, il faut pouvoir mettre également des mécanismes sur, des mécanismes sur le terrain, mécanismes judiciaires, non judiciaires sur le terrain. J'ai suivi Madame la gouverneure tout à l'heure qui parlait de médiation, et tout ça là. donc des mécanismes judiciaires et non judiciaires pour que les communautés puissent obtenir réparation. Ouais, et donc les Nations Unies sont, sont, sont, euh, sont engagées à soutenir également le gouvernement du Sénégal euh, par rapport à la promotion de ces principes directeurs et notamment dans l'élaboration d'un plan d'action national euh, euh, sur les entreprises et les droits de l'homme au regard de tout le dynamisme que connaît le Sénégal en ce moment en termes de développement économique moment. c'est le gouvernement qui a décidé d'élaborer un plan d'action et nous accompagnons la volonté du gouvernement. Euh, aussi bien les Nations Unies que tous les autres partenaires, nous accompagnons la volonté politique du gouvernement d'élaborer un plan d'action national au regard euh, du, du, du, regain euh, d'activité euh, de, de, développement économique social que connaît le Sénégal en ce moment. Nous, nous avons estimé que c'était une priorité. Euh, nous nous réjouissons d'ailleurs que le gouvernement, euh, que ce soit une priorité pour le gouvernement Oui, c'est important, euh, la, la, la, question de, de, protéger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement est dans son rôle. Oui, et, et, les entreprises, faire comprendre aux, aux entreprises euh, qui, qui, décident d'investir au Sénégal, qui de, qui accompagnent le Sénégal dans son développement économique qui a des règles à respecter dans le domaine. Et aider les communautés euh, à pouvoir également euh, obtenir réparation. il faut les sensibiliser, il faut les informer sur leurs droits. pour qu'ils puissent obtenir une réparation par rapport à, à l'impact négatif que pourrait avoir sur, sur, la vie des communautés et l'activité des entreprises. Le mécanisme contraignant, c'est exactement ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, non seulement euh, les lois, le respect des lois, voyez, les lois et règlements, je l'ai déjà rappelé, c est, c est, ça, fait, ça fait partie du rôle de protection de l'État. Vous voyez, euh, voter les lois, si ces lois n'existent pas dans un domaine précis, il faut, il faut voter les lois. Euh, les lois et règlements. Mais il ne suffit pas seulement de revoter les lois et règlements, mais également il faut faire appliquer les lois, l'application effective des lois. C'est fondamental. Donc l'importance euh, de, tout l'appareil, euh, de tout les des mécanismes judiciaires et non judiciaires, voyez, dont Madame la, la de l'effectivité de leur fonctionnement, comment ces mécanismes-là doivent également jouer leur rôle afin, afin que les communautés puissent Euh, la, pas seulement que ces entreprises-là puissent respecter ces lois et règlements, mais également permettre aux communautés également d'obtenir réparation. Ouais, je crois que c'est voilà exactement euh, ce taropage. C'est pas c'est pas euh, euh, euh des lois, euh, comment dirais-je. La, la, la, loi s'impose à tout le monde. Vous voyez, nul n'est au-dessus de la loi. Donc qu'il s'agit également d'entreprises, euh, pas seulement les mais les entreprises dans leurs activités sont également soumises à ces, à ces lois et règlements et par conséquent, il faut, faut les faire respecter. Donc...